Euh, euh, te def ci tawasul ñaan sunu borom teggi jàngoro ji ci àdduna bi xasida googu lan fas yéene indi di sàkku képp ku dégg sunu kàddu fa mu nekk bu fekkee mën na koo jàng juróom yoon yéene ci yàlla teggi jàngoro ji ci kaw àdduna bi yépp rek rawatina sunu réew mi di Sénégal euh, naka noonu képp ku ko dégg te man koo jàng nga jël xasida gi jàng ko yéene ci loolu képp ku ko munta jàngit nga def effort ba wut ku la ko jàngal ku la ko jàngal yéene ci ñëpp ndax ñaan kii ñaan baax na ki toog naan amin it baax na képpit koo xam ni mën ngaa topp ci kàddu yi ni waxit nga topp ci wax ko incha allahu rabbi ñun ñëpp ñu maase ci te lépp lu waaye mën a génne muy sarax nu mu toll ku mu jàpp ni soxla na ko mu yëkkati ko jox ko mu doon luy njariñ rek mu def ko ñu ñaan yàlla teggi jàngoro ji nekk ci àdduna bi muy coronavirus képp ku mu daloon ñuy ñaan bépp jullit bu mu dal rek yàlla sunu borom saafara la te sunu borom génne ko ci àdduna bi ba julit ñëpp nekkaat ci jàmm ñaan gi mooy bismillahi rrahmani rrahim wa alaykum assalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu fa haakum haazihil fa haakum haajil abyaata shifaan min kulli daain wa xisnan xasinan min makaidi jamihi l aadaai yaa rabbi bil mustafa al muxtaari min mudarin safihi ummatihi fil badri wal xadari fil badwi wal xadari alayhi salli bi taslimin bila adadin fil aali wa sahbi waxshimna min addarari xut ummatal mustafa amma yajuuru lahum siwal cibaadaati waxsimhum min asharari wasrif li gayrihimu shaytaana fi abadin wal takfihim kulla ma yastu min albashari wal tasrifi daa an marda jamiihi bihi wasrif lahum mujibaatil amni wal bushari waj'al quluba zawil islaami fi amanin wal takfihim kullama yufdi ilal gharari wasalli da'ban bi taslimin alayhi biman lahun tamu wal tajud bi shafi wa durari subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin